احسبوا بإذن بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذا من بعد عطف وقع وبين اللام جر وبين لا ولام جر نلتزم إثار أن ناسبة وإن هدم laa fa ana amil aw mudhara wa baada nafi kaana xam nu nudmira kazalika baada aw isa yatlu noode hatta dañ doon jàng hawa milu nas nañ lay lan jàng nañ kay jàng nañ itam an bokk na ci na sa mudaari mu ne wa nasabee nañ bi isan hmm. al mustaqbala mu daare o muy tegtale jamono buy jublu si hmm. isan danay nasab mu daare hmm. ci sartab mu daare o min tegtale luy jublu si waaye mu daare bu àndeeg isan it dañ koy rafa isan du ko mën a nasab kon fa yur fan o dees na rafa isan tas eh, kon de waaye wax nga dëgg jawaban liman qaala uhibbu waaye xam naa ci yow cofeel nga ne gaa dëgg la tasduq boobu mudaari la jamono buñ toll mu ngi ànd isan isan du ko mën a nasab dañ koy rafa in suddirat ndegam jiitalees na ko te itam nag day fekk mu nekk ci bopp wax waaye isan ci biir wax il ko ci bopp lay nekk wa illa uhumila su fekkee ne kay moom ci biir wax la nekk kon du liggéeyati ni ki la waykat ba wax ne la in aadali abdul asiisi bi misliha wa amkanani minha isan la uqiluha kusayru kusayru hassata saayir amawi la bu xam tur moom ak Abdou Aziz al Amawi bàyyi Omar ibn Abdul Aziz ñoo jamono ante woon hmm. benn bis Abdul Aziz da ko wax na ko waxal loo bëgg rek hmm. ci sa wéy ma defal la hmm. mu ko ah man de nekk xalifa nekk amirul muminin sa place bi laa bëgg de mu ah, kooku du ma ko mën a jox ko sëy na man nag feeg nit ak maa laaj li ma bëgg daal li ma bëgg laa ko wax la mu waxoon bu ko waxaatoon it hmm. li ma wax nii laa koy wax waa la in bu delloo Abdul Aziz Abdul Aziz bi mislihaa ca kem la ma waxoon waxal loo bëgg hmm. waa am kana nii mu jàppandal ma min haa may ma lu ma bëgg ma sañ ko wax hmm. isan bu boobaa yi laa ko du ma xàcceel xilaafa gi du tax ma ko leneen de ma daal ku ma laaj loo bëgg li ma bëgg laa lay wax xam nga li am soxla mooy lan isan ci biir wax la nekk wa am kana nii mi naa isan hmm. man uqiilu ki ma ànda dañ ko rafaale hmm. isan bu tàmbaliwul du na sax dégg nga waaw wal fi'lu te fi'l ji baadu nekk na ci gannaaw hmm. moo salan lu ñu jokk te na fekk digganteem ak mudaari'am bi mu war a nasab wa qawluhu laa tatrukani ah, eh? wa amma qawluhu la war a doon waay wa amkana nii minha isnan la uqiluha wa amma qawluhu la wa amma qawluhu du wa qawluhu nga ne ko man gis naa isan nasab mudaarixon te nekkul ci bopp wax mu ne wa amma qawluhu la nga dégg wéykat banaan laa tatrukanni fihimu satira inni idan ahlika aw atira la tatrukan nii bal ma bàyyi sa tiiran may ku ñuy séddoo wala may ku tumaranki fiim ci ñoom mm-hmm. inni man isan bu boobaa ahlika dana halaku mm-hmm. aw atira mm-hmm. xam nga li ñu am soxla mooy ahlika ñu ngi ko nasab ak isan te isan nekkul ci bopp ba ndax inni han ko jiitu loolu la wax ne fa daruratun loru wéy rek la awel xabar maxsuufun hmm. wala xabari inna dañ ko xasam hmm. kon isan bokk wax la hmm. wal fi'lu te mbir moom fi'l ji baadu nekk na ci gannaaw musalan di lu ñu jokk te itam day fekk digganteem ak mudaari moom bi mu war nasab moom isan dara jaaru kon fa yur fa wa des na dafa lu mel ni isan ana ugri diggante asa isan ak ugri ma ana jaaree wala xarfu tanfiir hmm. dafay waral isan doo su mën a tee nasab bi hmm. dañ ko war a wax isan ana ukrimu te isan sa ukrimu dara hmm. fa wa nasaboo nasabee nañ bi isan ci isan al mustaqbala mudaare moom muy tegtale jamono buy jublu si isan dana nasab mudaare moom ci sartaab buy tegtale jamono buy jublu in suddirat jiita jiitaleef na ko moom isan te it na fekk isan nekk ca bopp wax hmm. wal fi'lu te mbir moom fi'l ja baax du nekk nañ ci gannaawam hmm. mosalan de lu ñu jokk te itam fi'l bi mu war a nasab topp ci moom nii sa sal hmm. dara jaarul seen diggante nekk ci njëkkam bi al ak fi'l bi mu war a nasab soo fi doxalee ngi du te isan mën a nasab isan wallahi narmiyahum bi harbin tusibu tifla min qablil masibi isan bu boobaa wallahi narmiyahum dana ñu leen sànni bi harbin ci xare boo xam ne tusibu dana mu bi jawal atifla gune min qablil masibi ci njëkk bi jaw isan narmiya wallahi mu ngi fi jaar hmm. waaye teewul nag na nañ hmm. ci loolu lañ am soxla hmm. wala door bi am de léeg-léeg boppam la tool moom foofu la yem loolu boppam la bañ boole yu bokk waaye tool moom foofu la yem naka saraf mën naa jaar diggante isan ak mu ma bi mu war a nasab du tee man koo ne ko naan idan hendanaa nugri makka wala jaar ak majruur mën na jaar lu mel ni isan fi daari nugri makka yëpp mën nga fay wax selu ngu baax a baax wala munaada nga ne isan yaa sadiqu nugri makka wala laa bu doxee diggante isaan ak mutaarin bi muy ànd hmm. du tee isaan mën a nasab hmm. su moyee yi nag isaan diggante moom mutaarin moom dara waru faa jaar hmm. bu leen jàng ay juróom ngeen di am am na ay tafasil yu mu amil isaan la gayloo al isa atat ka awwala su la dikkalee si njëlbeenal wax wa suqta fi'lan mustaqbala te mudaare ma de teg la jamono buy jublu si isa amaltaha an tafsila soo koy liggéeyloo nga bañ a doxale digganteem ak mudaare ma mi suba du mën a tee liggéey illa bi xalfin xanaa ngiñ mën na faa aw nidaa in hoote mën na faa aw bidaa wala laa mën na fay jaar wafsil bi zarfin aw bi majruurin saraf mën na faa jaar wala jaar ak majruur ala ra'i ibni osfurin raisin nuzala loolu mooy gis-gis ibni osfur nga xam ne mooy kilifa ñu xelu mu ne wansim na nga nasab warfahan wala nga rafaa isa isan bu tabbee isan nga firi haale waqaa min baadi harfin ci gannaaw ati isan su ko haraf huwati gannaaw nga ne wa su la neexee nga liggéey loo ko gis ne waaw xati haraf boobu teewul mu ci bopp wax su la neexee nga bañ koo liggéey loo rek gis ne gannaaw dara jiitu na ko nekkatul ci bopp wax wa xuriyaa jàngees na bil wajhayni ci ñaari anam yi dañoo jàng ci alquran mm. wa idan la yalbasuuna xalfaka illa qalilan mm. ak wa idan la yalbasu xalfaka illa qalilan mm. lu ñu nekk jàngin la ñun la yalbasuuna dañoo jàng dañoo neenal isan ndax gannaaw waaw jiitu na ko rek wax da liggéey adaño idan la yalbasu liggéey loo isan fi'lu bi ñu nasab ko ndax jiitu waaw gi tewu koo nekk ci bopp wax kon waru ko te kala mu ne wa in taji bi harfi atfin awwala hmm. soo indee haraf fatin mu jiitu ko hmm. fa ahsanul wajhayni an la toomale hmm. la la gën a rafet mooy nga bañ koo liggéey mooy ci seen ay juróom yooyu ngeen di am waa dégg nga wansim nanga nasa warfahan walla nga rafa isa isan bu tabbee isan nga firi hale waqaa boo ne ak jigéen na fatin ñeenti yile dey Hmm. ñooy na sàmm daayoo muy an lan isan hmm. kay hmm. yeneen yi des dañ dee ànd ak mu daarion mu daarion ma ñi nasab ko fekk ñoom dut ñoom ñoo de nasab seen liggéey leneen la waaye mu ma an moo ko nasab ci seen gannaaw yooyu nag am na ci yoo xam ne ay xarafi jar lañ am na ci yoo xam ne ay xarafi xiif lañ yooyu yëpp dana la leen jàngal hmm. ñu ngi dalee ci nga xam ne araf jar la hmm. araf bi jar yooyu nag biñ ca njëkk a jàng hmm. mooy laam bi ñuy wax laamu kay laamu jar bi nga xam ne àndul ak kaana gu ñu dàq kooku danay ànd ak mudaare ma ak ànd su fekkee mu laam googu nag mudaare bi muy ñëw dafa ànd ak laa kon ànd bi kenn du ko nëbb day koy génne su fekkee mudaare bi muy ñëw àndul ak laa nag kon ànd bi bu la neexee nga génne ko hmm. neex nga bañ koo génne hmm. li muy mbiru ànd hmm. ci gannaaw la mu tax mu daa ne waltusima war a leef na isaaru an feeñal an nasibatan mbirum mu daa ji nasab bay na laa ci diggante laa benn muy laax ak dàq wala muy laax ak ndollal wala mi jarrin ak laam ak jar laamu taalil su waree ànd ak mudaareŋo hmm. mudaareŋo mi lënkoog laa hmm. moo xam laa ak dàq la wala ak ndol hmm. an bay na sab mudaareŋo kenn du ko xasab dañ koy ni ki li ñuy jàng ci alquran mu ne li yàlla laa mu taalil la yaalamu dikk ànd an ànd laa kon an bi nasab yaalamu day génn ñu hmm. war a wax li an laa yaalama hmm. su jëlee nun ak an li daxaam ko ci laam ak laa hmm. dafay nekk li allah su fekkee dañoo jëfandikoo tasirul hamsati ci riwaaya bi ñuy jàngee alquran hamsa gi day nekk yaa ñu ne ibdaal ko xam ne ibdaal hamsati dégg ak lu mel ne li yàlla yekoona kooku itam noonu la laamu taadil la yëkkoonu dikk ànd ak laa hmm. an bi war a nasab yëkkoonu il faut day génn hmm. war nekk li an laa yëkkoona hmm. ñu jël nuunu an bi li daxam ko ci laam ak laa gi muy li an laa yëkkoona li an laa yëkkoona ñu soppi hamsa gi yaanaan li yàlla yëkkoona ndax mbiru tajwid dégg nga kon al mudaari bu àndeeg laa naafiyatan aw zaidatan war a topp laamu taxlil mu daari xam ma koy nasab an ba koy nasab ci gannaaw laam dañ koy génne kenn du ko nattale mu daari xam bu àndeeg laa moo xam laa ak dàqal la wax laa ak sayid fekk si laamu taxlil an bay war a ci gannaaw laam gi kenn du ko nattale dañ koy génne moo tax si ma war a leen izhaaru an feeñal an nasibatan mbiroom mu daa ci nasab moom an hmm. bayna laa ci diggante laa laa ak dàq ak laa ak sayida ci xam hmm. wala mi jëri nag laa mu jàll hmm. su fekkee mudaari xam mi mooy àndat laa àndut ak moom su la neexee nga nasab mudaari xam bi an mut mara wala nga nasab ko bi an mut hara loo def baax na moo tax ne wayin xoddi bu ñàkkee fee laa laa su fekkee laa amul kon fa ax bin la gay looxal an an mot maran bu doon muy lu hmm. aw mu wala muy lu ñu feeñal hmm. <laughs> ah kon ba dañ lay loo hmm. bu la neexee nga génne an bu la a génne an ci alquran wa umir li nuslima nuslim yaa ngi ko sabbi an mut maratin baada lami taxliili mu daare ma mu lanko hudan laala ba mu dellu feeñ mooy wa umirtu li an akuna awalal muslimin akkoon yaa ngi ko nasab bi al mudharatin ba'dal laa moo tax ne wéy noo dima bu ñàkkee fee laa laa faa na nga liggéey loo an an mut maran dina lu ñu nëbb ne nga gis wa naa li nuslima aw mudharan wala muy lu ñu feeñ ne nga gis wa min li an akkoon aw li muslim loolu mooy mbiru laamu taxli bokk na ci ànde nasab ci seen gannaaw laamul juhóodi mooy lam bi ànd ak kaana gu ñu dàq kooku nag an bii na ci gannaaw kenn du ko génne nëbb rek lañ koy def maanaam wa ut mi rek na bees na an bii na sab mu ci gannaaw laam baada na bii kaane ci gannaaw kaane juñ dàq xat man ci lu war an bi war a na sab mu daaree baada laamil juhóodi te may lam bi ànd ak kaane guñ dàq kenn du ko génne ni ngi lam yëkkuni laahu li yaxfira lahum gis kenn jàngu li ay yaxfira lahum wa in kaana makruhum li tazuula minhu ljibaal kenn jàngu li an tazuula wa ma kaana allahu li yuasibahum kenn jàngu li an yuasibahum kon noonu nga koy xamee an ci gannaaw la amul juhóodi kenn du ko génne génne ko yàqam waaw wut ni raxasu na bees na ko moom an bii na sa mudaare ma ci gannaaw la am ak jar Hmm. baada na fi kaana ci gannaaw kaana duñu dàq am hmm. man ci lu wax hmm. kasaaka naka noonu an an xafiya nëbb na mu baax da aw te lu baax a baax aw dégg nga isaa yasluhu ndegam dana xéwén fii mawdin ha ci barabu aw bi hatta aw bu fekkee dañ cee déggee maanaam illahi sette xam ne maanaam yan qadi dafa tan wahida hmm. kooku mudaare ma mooy ànd dañ koo nasab ak an bu xam ne nëbb dañ koy nëbb lu war la hmm. mooy comme lu mel ni la aqatulanna al kafira aw yuslima hmm. ma nga jàngoon ci gànnaaw wa kuntu ida xamastu qanaata qawmin kasartu kuubaha aw tastaqima wa kuntu nekkoon naa ida kasartu bu ma dammee xanaata xaw men guntu aw nit kasar maanaam bu ma bëjee kasartu ah xamastu la wax isa xamastu waaw wa kuntu nekkoon naa isa xamastu bu ma bëjee xanaa taxaw min guntu aw kasartu ma damm koxabaha ay doj waram su ma daan bëj guntu dama koy wëj bu mu damm hmm. aw tastaqiman dara illaa la feneen wax wax mooy waroon mujj isa yasluhu fii mawdiha hatta bi maanaam kay hmm. mooy dañ cee dégg ilaahi dayal hmm. la urdiyanna allaha damay gërëm loo yàlla aw yaxfira lii jëm ba mu jéggal ma hmm. dama mel ni xatta yaxfira lii la hmm. wala kay yaxfira lii hmm. laa si man naka damay tëqu yow aw taqdiya nii jëm ba nga fay ma xaq yi dama mel ni xatta taqdiya nii xaq yi wala kay taqdiya nii xaq yi la astasilanna saaba aw udrikal muna fa man qaadatil amalu illa li saabiri لأتصلن mm. تنافت يوما mm. الصعب lu jafeñ aw udrika ba ma jot al mu ndare al mu naami bari wala ba ma al mu naami bari lu mbir jafe-jafe danaa xeex ak moom ba gañe ko ba keram may am li ma bëgg fa man qaadat fa ma turut al amalu illa li sabirin al aji muñ udrika yaa ngi kon na sabbi an mutmaratin wujuban aw kazaka naka noonu an an xafiya nëbb na mu hmm. baada aw ci gannaaw aw isa hmm. yasluhu ndegam dana xewen fi moo dee xaar ci barabu aw xatta hmm. xatta aw illa wala illa